aja Sa Thiès bu loolu moo lu weex li waaye Géant lay bëreel moom poids lourd bi du yomb naxante ngir laal ci nag yi 22 mbërë fi ne Sa bu loolu ñu ngi bëree bu loolu bi Sa Thiès mu ngi koy filer bañ na attention mu daw poids lourd la ba tey ñu xool ba xam wala defar lay mu jëkk gët attention ñu dem ba tey Sa Thiès bu loolu moo nekk noonu yor ngeen lu weex li waaye Sa Thiès bu loolu li ma jaaxal mooy amul ngeen dañ lay génnewaat nga am avertissement avertissement day am arbitre bi woote waat na Sa Thiès bu Rouss Mbarka joxante ah, boo meree mer demul ci lamb de Sa Thiès bu suuf kii muy bëre nii fiile wër ndëm wër ndëm ay ay ay wër ndëm ba léegi des na de ko yëgati ay ay ay ay ay ay ay